mu falu moom du def tuuru Sénégal léegi nag politiciens Sénégal yi ñoom dañoom am problème mu carrière bi mag Sall defee tuuru Sénégal falu ñoom ñëpp dem nañ def tuur pourtant falu wuñ waa xalifa Sall wër na tuuru Sénégal am 1 pour cent pourtant <coughs> ñii ñëw def intercoalition ci législatif am ci ndam gis nga ko mu ñor ak mu ñàkk a ñor ñu ne dañuy def ay intercoalition intercoalition boo xam ne bi ko yeewi askan wi defee sax. liñ doon amee réseaux sociaux yi ak am communication yépp dañ ci am problème. est que du loolu dong lañ jàpp ni moo dañ cee am problème parce que da ngay gis dëkk boo xam ne nii militants yi lañ war a wateel ñu romb ko fa dem wateel wallu wala ñu ñëw wate ñaar yépp ñuy wate yi ñuy wate wallu nga xam ne dañoo perte ay voix yu bari fu mel ne Louga wala a Jolof defe naa su yeewee wallu boole woon li am dañuy raw mais pourtant ñoom ñaar dañoo ñëw ñaari côté yépp wate APR ñëw raw ñu nañ ci sax am ay problème ñoom nag gis nañ gars yi def ko rek xawoon na am cohabitation ci ci élection yi ñu ne léegi ay kon nañ def intercoalition mais intercoalition boo xam ne yow journaliste mënoo ko expliquer. mais ñoom est-ce que du loolu dong la ñu gis ni mooy seen arme bu ñu mën a yóbbaale. non loolu du arme arme kay mooy li ñu waroon def mooy dañoo waroon a génn liste nationale ñu nekk kenn ku nekk dem ci sa département ba nga dëkk nga nga nga tenter sa sens soo faloo nga xam ne lii la la yàlla jox fii mooy sa chef soo faluwut nga dem muñ mais ba ngoom moo doon wax mooy borom aañam hmm? daw na dugg liste nationale ah Aïssata nee na mooy borom daw na dugg national hmm? Thérèse Faye nee na mooy borom Fatick ak jaare mu ngi ci national ah euh, parce que ñoom ñëpp rek euh, même Amadou Lamine Thiam moo daan wax naan Abdoulaye Wade mooy borom Kébémer moom moo ko fa nekkal ci national bi ah? boo demee tey Amadou Ba mu ngi ci national bi ah Abdou Bara Dolly nee na moom Touba moom moo fa teg tànk pourtant ñemewu faa nekk candidat de ci national ba la dem ah ñoom euh, tey Pape Djibril Fall demul département bi fenn daa daw dugg ci national bi Bart mu ngi national ba Déthié ma ngi ca national ba Anta Babacar Ngom ma ngi ca national ba Pire ma ngi national ba Bougane ma ngi national ba ba daj loolu moom moo nekkoon sànni maanaam bu fekkee ay politiciens lañ au moins yow bala ngaa taxaw di laaj Sénégal Sonko avant mu lay laaj Sénégal mais wóor na la ne moom moom moom Casamance mën na ko gañe mais yow mënoo gañe ci Sénégal benn centre de wot ba pare yëpp sénégalais yi ne leen léegi man mën naa mën naa leen a jiite te bu demee ba dara desul lu koy jëmmal yow amoo fitu dem caajaay ne man maay sama seen candidat ñu wateel la. yow itam nga bokk ci ñi nga xamante ni tabb nañ leen euh, sa biir kàddu sànq yaa ngi naa nekkul woon loo xamante ni euh, loo xaarandi la woon wala loo xamante ni euh, loo bëggoon la mais dafa ñëw rek daal di daal di sa kaw nga nangu ko. mais xam nga man ñëwuma ne damaa yor parti politique ne damaa am am mbooloo man dañ ma jël rek def ma ci nag liste nationale peut-être ki ma ci def moom xam naa lan moo tax mu def ma ci comprendre nga mais Pape Djibril dafa ñëw ne que moom dafa am mbooloo. moom dafa war a mën a yilif réew mi jiite réew mi hmm? Farba ne moo moom Agnam diw ne moo moom fee waa léegi yow yow nan nga mën a mën a laajee réew te yow amul benn département ci 46 département yi nekk Sénégal foo ñemee dem nekk seen tête de yow daal bëggaan coowam lu bari lépp fu mu dëkk ci réew mi. Baal dëkk ah. Baal bëggaan après nañ dem. ah ko ci ay <coughs> ah? léegi yow doo dem fa nga dëkk nga dem. nga nga positionné foofu mais daal yow liste nationale bi ngay daw làqatu ji boo waroon dem ba quatre-vingt-quatrième sax moo la gënal nga dem nekk ci département yi parce que xam nañ ne amuñuy nit loolu mooy dëgg. amuñu gis nga nag loolu ngay loolu ngay wax noonu ay ay ay ay ay ñu jéngu fii jéngu amu fi. élection yii di ñëw buñ demee ba ngoon hmm, dina am ñoo xam ne nii maanaam danañ mel ne dégg-dégg ndax danañ leen wal bañ nooy népp école boobu est-ce que Macky Sall dina leen ci bàyyi parce que d'ailleurs euh, nee nañu moom dina ñëw euh, battre campagne Sénégal gëm nga ni dina fi teg tànkam. lu tax nga naan ma gëm ko xanaa dëkk fi. waaw parce que ñu bari moom ko gëmul yow. yow gëmoo ko ku ci nekk ak sa opinion. yow gëm nga mais ñu ko gëmul ëpp ñu ko gëm. gëm nga ko man personnellement li may gëm mooy que ni du ñëw. loolu hmm. nag mais ku ci nekk ak sa opinion personnelle la. ñëw ànd ak Karim. léegi yow sa opinion personnelle est-ce que jàpp nga ni Macky Sall dina dina ñëw ngir battre campagne Sénégal. dama ne Macky Sall daal daa toogoon fii ci jam ñaajo ne damaa doyal ci réew mi sëkk man affaire bi doyal naa ci yow matul 6 mois nga naan àllil ma député xanaa doyalul Macky Sall du ñëw fii. lan moo tax nga jàpp ni da koo ñemewul. lan la ragal. <laughs> yow Macky Sall bi muy dem naam ban bi muy yëg ci avion bi gis nga ko. da doo caay ci xol. <laughs> loolu kii naan loolu jomay naan babali <laughs> ci babali la soloon kay ngandum ngandum kii la sol kay xaw ma caaya la xaw ma xaftaan bu weex la sol waaye bi mu ngi yéeg ci avion bi da doon daw de waaw yaakaar ne gars yi danaa ko sawaay kaay yooyu sawaay daw génn fii du fi du gàdde APR dafa amut leader loolu mooy seen problème Mansour Faye fa nekk Mansour Faye kenn xamu ko lay daw di jàll kenn xamu ko Modou Mame Diop kenn xamu ko te koo ci jiital da ngay am problème léegi Macky Sall pour mu tranché mu nekk tête de bi. mais du fi ñëw. Mm-hmm. kooku moom yow. non damaa xam ne du ñëw. lan da koo jëralut ñëw du question ragal ak ñàkk ragal élection yi moo ko jëralut di ñëw parce que xam na ne ñëw perte ko ñàkk ñëw da koy perte léegi nag bañ a ñëw te perte ko ko gën ci moom. déggee euh, keroog réponse bi nga xamante ni joxe na ko ci benn journal euh, mi ngi yëgle que ni Ousmane Sonko li muy teg ci dërëm yëpp nekkul loo xamante ni lu am la donc moom jàpp ne instant bi ginnaawam ban nag amul leen lu ñu ko mën a toppee Sénégal. waaw loolu xam nga nit moom booy wax ci sa bopp noonu ngay def mosoo dégg kuy wax naan liñ may waxal lépp maa ko def hmm? loolu la rek da doon boppam rek mais loolu taxu ko set. Macky Sall liñ naan xol xasen na tak kenn wokkeeti ko baaraam ndax baaraam moo ko jotut Macky Sall la koy satal du ab saabu saabu du ko du ko satal der bu yàqu la ba pare. te pourtant su ko doon wax du moom du baaraam mais plutôt euh, daf ko joxañ waxa ñaale kii nii di Amadou mais jusqu'à présent amul ñoom ñaar kenn koo xamante ni euh, tontu nga ko ci lu jëm ci wàllum chiffre yi nga xamante ni moom lañ doon jiiñ maanaam alal ju bari. waaw kenn ku ne danaan rek man bu sàcc amet du man loolu dong la ñuy wax. mais sàcc am na. ah weddi wuñ ko de mhm. <laughs> Amadou Ba de weddi wu ko waaye neen waaye neen du moom. mais Macky nee na alal ji dañ koo dugal ci réew mi. te nee na réew mu amul bor amul. loolu kay kenn ñoo la ko gën a xam. Mm-hmm, loolu moom ñun ñoo ko gën a xam parce que bi mu fiy ñëw dafa doonum réew doon ni bor. Mm-hmm. mais daa jëlee bor yi ci mille milliards yóbbu ko ba ba 18000 milliards te alal jooju kenn xamul fu mu dugg. def ay problème yoo xamante ne tey jii Macky Sall Macky Sall li ko mën a toppee bis bu fi duggoon li ñu ko mën a toppee dafa bari <coughs> président de la république bu taxaw ci pénc mi daan ne man bu ñu defee ay rapport ba pare dama ciy teg sama conc moo ko wax publiquement avale maa ci teg sama conc bi nga wemee ba wàcc ñu tijj dossiers yi gis na dossier yëpp ay détournement la ay sàcc la yu leer nañ kon moom dafa demoon waat ci constitution bi ne dina aar réew mi ak alal réew mi to sàmmonte constitution bi mu gis ñuy sàcc au lieu mu teg leen li li constitution bi wax mais mu cautionné sàcc gi loolu rek autorisation la boo xam ne bu fi ñëwoon bu ñu neexoon topp ko ci loolu voilà parce que Macky Sall amul lu xewul gis nga Sonko li mu wax moo gën a tuuti ci li xew gis nga Macky Sall yaa ngi dégg marché 71 milliards bu sante bi buñ fi doon coow jamono Macky Sall genre yooyu maa ngi gis ko ko xam mu ne ma presque mën na ko topp ba mu mat cent milliards ci ay marché yoo xam ne xam nga yoonu loi Sénégal dafa tere.